am na bari lu fi juddu ginnaaw bi eh, UNESCO waxé ni eh, defee classement bobu ci eh, wala li wax accès manam xale wara war a jàng mën am fu mu jàngee ak tout d'achèvement manam xale yi nekk ci école yi euh lu yagg par exemple même si xam nga fi Sénégal am sax ñu wax cycle fondamental xale bi war na école entre donc 6 euh, euh, au moins une dizaine d'années 6 et 16 ans ñu bëri na ñu wax mais liñ ciy wax xamuñu ko fausse interprétation parce que fii UNESCO quantité mais du du qualité d'ailleurs sax ci rapport bi euh, wax nañ ko euh, sax ay pays ci système éducatif dafa am ay indicateurs yu bëri indicateurs accès la indicateurs yi bu maintien euh, donc ñu avons aussi abandon ñuy bàyyi promotion ñi avons xam dañuy dañuy dañuy dañuy passé dañuy réussir seen seen examen mais aussi amna yenen indicateur du mel ni genre équité yu non non, même sécurité donc lolu pour man lu lu am solo donc Sénégal yi xam ni dañuy classé ay ay réew réew bi mo gëna ay ou ou ou déet nekkuñu ci schéma bobu bi ci tek aussi ci Sénégal aussi euh, bu ñu fekkente ne ay données quantitatives la. Sénégal mën na nekk fii par exemple vingtième position parce que Sénégal dafa am benn indicateur bu mu bu mu bu mu dugal ci paquet bi muy qualité qualité du système éducatif parce que xale yi aussi jàng baax na parce que bu bu Sénégal bu ko neexoon mu ni primaire kenn du doublé day am tout d'achèvement bu baax mais euh, mais aussi est-ce que xale yi passé noonu rek euh, loolu aussi problème la bien que euh, dañu am na sax lu ñuy wax dañu koy tere mooy redoublement intra étape dañu koy tere bon donc bu fekkee da nga tànn étape ok da nga tànn qualité dafa am lu ñuy wax euh, da ngay def sélection parce que suñu système ba léegi c'est sélectif moo waral ba suñu taux euh, de de promotion yeggul ci 79 dix neuf pour cent te soixante pour cent li mu visé suñu taux de redoublement dafa dafa ba tey dafa dafa dafa kawe ndax mi ngi ci 5 pour cent suñu taux aussi euh, d'abandon daanaka mi ngi ci 10%, pour cent donc dafa dafa bari donc mais nag am na loo xamante ne bii feeñu ci rapport bi loolu nag du UNESCO mais ci ñun la euh, maanaam dafa am Sénégal lu ñuy wax ay modèle alternatif am na beneen façon jàngale bu fi nekk euh, boo xamante ne bi bokkul ak euh, modèle donc classique bi maanaam bu nga xam moom lañu jàngale ci primaire bi donc parce que fii ay daaraa ngi fi daara moderne ay classe passerelle mi ngi fi kooku aussi ñëpp xam nañ ko am na aussi li ñuy wax les écoles communautaires de base am aussi les classes euh, donc d'apprentissage de niveau primaire te foofu yëpp ay xale fa nekk yoo xamante ne bii dañuy ñu ngi ñu ngi jàng suñ ko dugaloon ci rapport bi Sénégal du du am du am classement bi mais loolu incha allah daañu ko daañu ko corriger te bés bu ñu corriger di ngay gis ni situation dina renversé wu. que àll bi dafa am ay réalité ndax xale yi nga xamante ne bii seen seen seen seen i waajur ay sàmmkat lañu souvent dañuy dañuy màngal ànd ak ñoom dañuy jënd classe yi li ñuy wax aussi mariage précoce nga xam ne xale yu jigéen dañ leen teel a maye dañuy tay tel a bàyyi école bi loolu aussi dafay nekk eh, yoo xamante ni bi ay réalité la yoo xam ni ñu ngi koy jéem a corriger mais loolu c'est lié à la société sénégalaise mais dans tous les cas li système éducatif bi ñu yor donte ne am na ay jàngoro système bu dëgër la te ku jënoon ci ci ci Afrique di nga xam ne système Sénégal système bu dëgër la yor